mu mel ni nag suñ borom may nañ taw fekk fekk waat fekk muy ak ci mu ak ci ku ci ndax subhanahu wa taala bis yi dem dañ cee war di jël di bis bi nga may bis bi nga xam ni guddik bi muhammad sallallahu alayhi wasallam gane aduna muy bis boobu nga xam ni ci la yërmande wàcc ci kaw suuf muy bis bi nga xam ni ci la gënj mi def wàcc ci kaw suuf waaye ñëw indaale ñetti sërite muy sërite yu am solo bokk na ci alquraanul karim bokk na ci lislaam waaye bokk na ci ak yërmaande bu mat sëkk koo xam ni tey ñun ñëpp mooy suñu pajuk aaju àdduna ak alaxira moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu di ko wax wax yu yéeme di ko tagg di ko kañ ci kooku nga xam ne moom moo gane àdduna sallallahu taala alayhi wa sallam boo demee ci mowaax bi mi ngi naan ko zaaka rasulu zaaka alxalilu zaaka aljalilu lil asfiyaai zaaka alwakilu zaaka alkafilu zaaka alwusulu zil ittibaaki zaaka alshahiru zaaka almuniru zaaka alxatiru zil intiqaa'i وهو الخبير وهو البصير وهو البشير lizihtidaa'i sallallahu taala alayhi wa sallam muy ca beneen muwaahib ba Sëriñ Tuubaa bind ay muwaahib muy xamale ni kooku nga xamni mom moy mooy Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko zakir rasul kok moy ki yoni waye lan lañ ko yoni muy al islam kon day am solo ku nek ci ñun laaj sa bop lan mooy lislaam ndax moy li ñu jàpp julli wor nat asaka wala amna leneen lu gëna a xóot loolu war nañu laaj suñu bop alquranul karim gi nga xamni mom la subhanahu wa taala tek ci loxom mu nekk torche bi nga xamni mom moñu wara yoon wara won yoon wi nga xamni ñu ñëpp ku ci nekk ci ñun war na ci mëna bàyyi xel bu ñu ñëwee ci alquranul karim alquran subhanahu wa taala da ko indi muy hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan yàlla da ko indi ngir mu mën ñoo leral ci nek ci ñun fan nga wara mëna jaar ba mu a ba mën am dund gu ñom aduna ak alaxira alxuraan jooju sëriñ tuba radiallahu taala anhu da ko defal muy léppam mu ni banetu taati bi ittiba'i bi zikri wa sunnati wal ijma man serigne touba kat li nga xamni mom la wote fima tek samay talibe fima bëgg ñu jaar fa mooy ci al karim di set wecc waye yamu ci muni ak sunna su mat sëkk waaye ijma moy lépp lo xamni lu gaay yi yi bàyyi woon ak Serigne Touba da koy jël waye ndax da yam rek ci alcorane ngir mu nek yoon wi nga xamni mom lay jël bu neko defal mu def bu neko ko mu bàyyi da ci bok sop ko beug ko jàng ko diko ko jàngulu bëgg képp ku alcorane muni mu ni maasikan bil kitaabi bi yadi qa'id al basir al muin man Serigne Touba ñima jàppe alcorane da melni ni manam ki nga xamni gisul gumba tup ci kàddu gi ni muy jàppe yetu ki koy omat man Serigne Touba non la jàppe ci alxuraanul karim lépp luma alcorane alxuraan sant dama koy def lépp luma alcorane alxuraan tere dama koy bàyyi aw ma lu bëgg alcorane moy sama bëgg-bëgg motax man ko kitaabu ko diini wa huwa qilli wa muunisi hadatni bihi alhadi wa nasbi bihi zakka kitabun karimun min karimin mukarrimin kufiri bihi al'ada wa zanbu wa shirka kon moo doon yoon wi nga xamni ni la Serigne Touba jël mu doon léppam kon ñun tamit jullit ñi dañ ko wara jël mu doon suñu lépp waruñu cee yam rek ci jang bàqara bu mina dinati wa nas ku ci am becc woo ñu jàngal la ku am jafé jafé woo ñu jàngal la ku am mbir yo xamni dañ ko soxla ñu dem ñu bind la ci téere rek nga jël ko dedet da wara nek suñu méthodologie yoon wi nga xamni mom lañuy jaar ngir bëgg am aduna ak alakhirah suñ ko bëggee faaw ñu jël alxuraan karim def ko mu nek suñu yoon def ko mu suñu torche lool nak pour mu mëna ñong mu mëna soti faaw ñu jàng ko waaye faaw ñu xam ko jéem koo firilu di xam li muy tekki ndax yaakaar naa ku nekk ci ñun bu sa portable bu sonné message teen teen bala ngaa am jàmm faaw nga xam message bi lan la faaw nga xam message bi kan moo la ko bind faaw nga xam message bi lan moo ci nekk ku xëy ci ñun ku nekk li ngay njëkk def mooy taal sa whatsapp xool ñaata message moo wàcc am na sax ñu dem ba toll ci ni buñ duggee ci ay groupe gisuñu benn message dañ naan ana waa groupe ngir bëgg message yi wàcc waaye yaakaar naa bu fekkee subhanahu wa taala moom moo ñu bind message message boobu ku nekk ci ñun war nga ko mën a décortiquer xool message bi xam mooy lan muy alquranul karim moo tax moo doon lépp Serigne Touba kon bu fekkee ñun ay taalibe ren dañoo war a def lépp lépp loo xam ne alxuraan tere nañu ko dañ koo war a baax lépp lu ñu dañ koo war a jël kon loolu nag pour mu am faaw ñu jàng ko jàngalu ko waaye soññi njaboot gi ngir ñu jàng alhamdulilah da ngay gis ñu baree bari ci ñun dañuy sonn jël seeni doom yóbbu ci école yi nga xam ne mooy école nasaraan si parents yi sax dañuy gëm ni pour ñu jël suñuy doom jox ko ñu dul jullit ñoom ñoo ñu gën a sérieux ñoo ñu dàq jàngale ñoo ñu gën a ñoo ñu gën a xam comportement ñoo ñu gën a respecté lépp da nga koy dégg ñu koy wax waaye junni yee ñuy fay ci école yooyu buñ ko fayee ci école jullit école jullit dox ñun jullit ñi ñooy doxal seen école kon day am solo ñu delluwaat ci mbind yooyu xam ni développement ak lépp lu mën a doon ci kaw suuf am xel a koy def ñun nag dañoo yor li gën am lépp waaye parents yi dañuy defal li nga xam ne mooy lavage de cerveau dañuy jàpp ni yoruñu amuñu mënuñu ñeneen ñi ñoo yor ñeneen ñi ñoo mën ñeneen ñi ñoo am tey boo respecté heure ñu ne mbir waaju ji daa tubaab bi sax boo defaree aw kër gu rafet wala dara ñu ne waa ji dafa sugli ab tubaab la boo nekkee koo xam ne da ngaa jullite ñu ne waaju ab naar la waaye ñun lu ñu yor moo tax bu ñu déggee sëñ Tuubaa ca Masaalikul Jinaan muni fa laysa yujabu sawadan dirmi safahat al fata wa su'a fahmi loolu sëñ Tuubaa dako dako da ko da ko dañ tey libéré xam nit ki du der bi nga yor du sant bi nga am du fa nga dëkk dedet bu fekke am nga engagement ci diggante sa borom fépp way ag àgg mën nga faa àgg moo tax sëriñ Tuubaa bi mu dikkee topp kenn tul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mo do tax touba am bëgg-bëgg am himma guma sax ci boromam muni asahba rasulallah inni khadimuhu muhibban lakum fillahi wallahu yakalahu ay saxaaba ngeen naam waaye man maay xaadimu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu engagement ak gis-gis bu sori ak yitte ju kawe moo koy may nit kon li Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njëkk indi muy alquran Serigne Touba noonu la ko jàppe woon def ko muy léppam mu des al islam ndax nag tey boo délloon ci kaw suuf fii ñun jullit ñi nga ne ndax ñu appliqué l'islam ñi naan waaw ñu tuuti lay doon ndax lan ndax nit ñu wane l'islam moo tax bu nee l'islam di jàpp ni dóor la dagg loxo rey loolu rek la ñuy wane ci lislaam waaye lislaam rahma lil alamin fa bima rahmatin min allah linta lahum walaw kunta faddan galiza alqalbi lanfaddu min hawlik wa ma asnaak illa rahmatan lil alamin wa ma asnaak illa waaye ngir mu nekk yërmaane te lislaam jooju dañ koo tënk ci ñetti kenu kenn ko njëkk gi mooy at fexe ba doomu aadama yi am gëm-gëm gu ma sëkk ci digganteem ak boromam tawxiid googu ku la ko gën a am moo la gën a am raaxatul baal maanaam moo la gën a am état d'esprit positif da ngay dund dund ko ñoŋ da ngay am tranquillité ndax looy gën a bëgg sa borom di xam sa borom lépp xew ci kaw suuf da xam ne yàlla amoo mënoo yàllaa am yàllaa mën moo tax Sëriñ Tuubaa noppalu ni yaa rabbi in aataytani fa shukru wa in manata faridan wa sabru yàlla boo ma joxee man Serigne Touba damay sante xamni ne du sama jambaré waye yow yàlla kep boo ma xañee damay kontaan ba pare mun kon situation bu mu nek ñun xéena ñoy jaxlé waye situation bu mu nek da fay neex ndax day xam li gën la ko suñu borom di jox bi mi gën mu metti lol mu nan ko qallat wal ahlu anni tafarraqat li matxi allazi anhu al almadihu qasir ma ngi gën bayina samay kër bayina sama njabot bayna lépp waye len kep moma taxaju moy a sidna Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam liggéey mu metti lol dem ci geejgi façon mettal bu nek mettal nañ ko waye bi ñu bisee ngir am tawhid gu ma sëkk gi mu am motax mu ni lakina afutu an jami'in nas li wajhi ci muhlikin kan naas man kat jéggal na ñëpp xam nga tax mu jéggale ndax xam na ni lépp lu am yàlla kon nit ki lu muy gëna jëm boromam di gëna xam boromam di gën a am dund gu ñoŋ da nga dund dund gu neex moo tax sëriñ Muntaxa xafisahullahu taala ci jamonoy corona mu ne corona jaamub yàlla la nit ñi tiit muy julli juma nit ñi tiit muy jaamu yàlla nit ñi tiit lépp lu waaye am ci économie yaa ngi koy korkoral entreprise yaa ngi daw di dajale seen xaalis waaye moom lu mu yor jóg bokk ko jaam yi kooku mooy ki gëm yàlla kooku mooy ki xam yàlla loo koy gën a xam di ko gën a gëm sa dund di gën a ñoŋ di gën a yomb kon kenn gu njëkk ci islaam mooy ak tawxid ñaareelu kenn gi muy al axlaaq muy jikko ju rafet te yaakaar naa loolu lan tagg sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa innaka la ala xulqin azim sëriñ tubaa ni ko xat kaana akmalul wara xalxan wa xulxan zahara salli alayhi dul wara bi alihi wa sallimi sallallahu taala alayhi wa sallam mooy kat mooy ki gën ñëpp ci jikko moy ki gën ñëpp ci bind kon gudd gu mel nii bu ñëwee jàpp naa ne ku nekk si ñun war ngaa toog ruq mën a laaj sa bopp ndax ci koy yonent bi salaa diñ koy taggee ba nga koy naw di ko bëgg ndax mi ngi ci ci ñun ndax dañ ñu koo royloo dañ ñu koo royloo ci jikko royloo ñu ko ci jëf kon dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax ndax mu ngi jikko jooju waaye jikko jooju bu nga xoolee mën nañu ko tënk si ñaari mbir mu ëpp solo muy ar rahma yërmande kep koy jeflantel nga jeflantem ndax yërmande boole ci al abdu manam justice am yamo ci sa diggante doomu adamay kep ko xamne da ngay jeflantek mom nga jeflantek mom ci yermane ak al abdu ndax nit ki bu fekke doa ko koo do ko wax lu deug bu fekke doa lek koo do ko lor bu fekke dang ko koo do lek alalam bu fekke dang ko do ko jox rendez-vous midi ñew 9 h dedet kon yërmaande googu daa war a feeñ ci ñun moo tax Sëriñ Tuubaa ni ko ajib bi saari bi la sitaari bayna alxiyaari ila samaai sallallahu taala alayhi wa sallam kooku li tax yàlla defal ko loolu lépp mooy jikko ji mu yor kon jikko jooju day am solo bu baax a baax a baax ku nekk ci ñun war koo mën a xool fan la ci toll ñetteel bi mooy ash-sharia kon l'islam ñetti mbir moo ko tënk iman gu ma sëkk gëm sa borom te moo lay may nga am dund gu ñoom nit topp nga am jikko ji rafet mooy tax ñëpp naw la beneen bi mooy acharia chariatul islam dañ koo tëgg ci juróomi ponk fexe ba nit ñi mën a jaamu yàlla jaamu yàlla gu ñoom fexe ba doomu aadama bi mën a respecté bakkanam maanaam ñoŋal bakkanam mooy xëjsu ak nafs gannaaw bi nga sàmm si diine da ngaa war a sàmm sa bakkan waaye question dina ñëw diine ak bakkan bu ñu ci war a jiital est-ce bakkan la ñuy jiital wala diine amna fo xamni xam ni boo fa tollee amatul droit jiital sa diine sa sabakan sa diine nga wara a motax ñi nga xamni xeyna dañoo melni man dégg ñu fiq bu baax bi corona bi commencé ñu ni dañuy jiital bakkan doo ko sàmm diine naam man nañu dem ci lolu waye biñ demee ben ak ñaari ak sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee ñett sëri ci yoyu indi muy alquran indi at tawhid gëm yalla gu mat sëkk indi l'islam yooyu yëpp nag soo ko dajalee lenn képp moo ko tax mooy nan lañuy fexe ba doomu aadama mën a am bànneex ci kaw suuf nan lañuy fexe ba doomu aadama dundam mën a ñoŋ ci kaw suuf waaye loolu pour mu sotti yaakaar naa ñu tun tànk yi ñi nga xam ne ñooy ay waxambaane dañ cee am taxawaay bu am doole boo xam ne war nañ ko cee taxaw ndax lépp loo xam ni bëgg nga mu sax dund ay waxambaane ko dundal ñu mel ni bu ñu toogee fii Sénégal li ëpp ci nation bi nekk ay waxambaane xel mën naa dal su fekkee am nan yii may bëgg a wax bu njëkk bi mooy ñu am wàccaay gu ma sëkk ci suñu bopp moo tax Serigne Touba li mu njëkk def mooy waajal boppam ci xam-xam waajal boppam ci himma gu ma sëkk ngir lépp loo xam ne taxaw na ci sa kanam rek nga mën koo jàmmarloo ak moom moo tax mu ni walam azal munzu aqaltu taliba maarifatan billahi jalla taiba fa jultu bayna al ulama wal awliya man kat cheikhuna cheikh ahmadou bamba radiallahu taala anhu ba ma ràññee ba tey musumaa daj sàkku xam-xam kon ab murit li muy njëkke mooy sàkku xam-xam xóotal lépp luy xeetu xam-xam nag nga xootal ko bu baax a baax a baax leneen li nga xam ni tamit pour mu ñoŋ faw ñu bàyyi ci xel muy am yitte ju kawe te Sëriñ baax ci ñaari mbir yooyu la tabaxe yoon wi muy alxitma wal himma himma ju kawe ci saa borom muy lépp loo xam ni doomu aadama mën na ko ci kaw suuf ab murit daa war a jàpp ni moom it mën na ko ci kaw suuf moo tax anglais yi dañ naan la if awan kenn another one kenn bu fekkee kenn mën naa am xam-xam mën ngaa am xam-xam bu fekkee kenn mën naa réussir mën ngaa réussir waaye li muy laaj mooy nga waajal sa bopp kon ñun tout tànk yi ñun ñi nga xam ne ñooy waxambaane yi faaw ñu waajal suñu bopp ci xam-xam te bañ a jàngantu jàngant mooy mos benn téere ñaari téere ñetti téere daal di nekk ab seex xam dañ koy bënn dañ li nga xam ne tamit dinañu may tawfiix may ñu salaax ci kaw suuf mooy ñu am teggin am yar te jàpp naa ne bu ñu delluwaatee ci wax Serigne Touba delluwaat ci xasida yi lu mel ni ndax joxa daa lépp lu ñu soxla àdduna ak àllaaxira ci teggin Serigne Touba mi ñu ko fi woon waaye ñu mel ni jamono mënul ñoŋ suuf mënta ñoŋ te soxna ñoŋul soxna yi am taxawaay gu mat sëkk goo xam ni tey war nañ ko mën a taxawee ci sàmm seen diine ci sàmm seen ngor ci sampi kër ndax bu ñu xoolee lu ëpp trent pour cent ci mariage yi day tas te mbiri àdduna képp moo koy tas bu soxna baaxee kër baax bu soxna baaxee doom baax bu soxna baaxee àdduna baax nañu delluwaat xool suñu wayjur yi ku mel ni soxna Jaara Buso radiyallahu taala anha ñu xool ku mel ni Mamour Ansali nga xam ni dafa nekkoon nit ku bari jaxasoo ak i buur bari woon lu muy tuxu tey mi ngi paatar gannaaw suba mi ngi poroxaan gannaawaat suba mi ngi faneen nekk koo xam ne tamit ku am yitte la nit ñi di ko fekke si kon ku mel noonu bu fekkee amul woon dendandoo wala wéttal gu am yitte wéttal gu am xam-xam wéttal gu am teggin wéttal gu xam saa borom wéttal gu ko mën a jàppale yaakaar naa kon lu bare bare bare du sotti ndax waxambaane góor likoy may force moy soxna su bax motax ñu dégg Serigne Touba diko ñaan fu mu toll wa tawbatan khubilat mamik natun rufiat maazatun salhat bi diini yallah kon jigen du tar moy am solo du saw askan mo am solo waye dina ja yor moy li am solo li ëpp solo nak ci soxna mu war ko taxawé moy fexé samp kër yaru njaboot tay ñu ñëpp ñi nga bako soxna jaara bu sallallahu taala anha waaye lim ñu defal li ëpp solo mooy kim ñu indil muy Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu boole ci teel a nekk koo xam ne dafa jël responsabilité ci moom ndax bi sëñ bi amee juróom benn at ci saayir ci la ko soxna jaar bu sa commencé wax ni kaana min da bi saalihin xiyaamu layli ni ko yow mii kat da ngaa war a bokk ci gaa yu baax yi te gaa yu baax yi dañuy naafila guddi di taxawal guddi di naafila kon loolu dafa nekk loo xam ne taxawaayu soxna su am solo benen taxawaayit bu am solo bo xamni soxna yi war nañ ko mëna taxawé muy di jappalé njabot gi ci seeni am-am ku melni soxna Anta Ndiaye jëlé na ci sañ afé ñang mu ni ku mënon bopam la ku mënon aduna la ku jekk won aduna la waaye bu njabot gi masaana tollu digënté da daan génnee ay kopparam di jox njabot gi ngir jappalé leen kon soxna taxaway bobu faaw mu am ko ci kër yi ndax jamono metti na ku ci nekk da ngay jëm goor ñi jéem indi soxna yi jéem indi kër gi mën a kon faaw ñu boole suñuy doole leneen li nga xam tamit lu am soxla solo la ci taxawaayu soxna muy ñu fexe ba jàppale seen i borom kër jàppale leen ngir kër gi mën a samp ndax li ci ëpp góor yi ci bis la nekk kon su fekkee am nan soxna yu am taxawaay gu mat sëkk yaakaar naa dund gi dina mën a te ñoom Serigne Touba da leen joxon cër bu maga mag ngay dégg bu umina Khadija bu umina Hafsa bu umina aisha lan mo waral loolu ngir xamni dundu dund mënta ñoŋ te soxna ñongul kon ñaari kene yu ëpp solo ci dundu ngir mu ñong moy waxambaane ak soxna yi su waxambaane yi baxé am gis-gis am yitte ju kawe ci sa borom xamni ëllëgi Sénégal ci suñu loxo la nekk du wa Burkina Faso ñu ñëw di doxale ba Sénégal dédét waye loolu lépp nak lépp lépp ma fi wax. sëñ Tuubaa da koo tënk ci ay bayit yoo xamante ni xëy na ku nekk ci ñu yaa ngi koy romb te doo ci bàyyi xel mu nekk ci mat matlabu shifa yi nga xam ne bu ñu bëggee développement àdduna ak àllaaxira bu ñu bëggee saafara àdduna ak àllaaxira nañu dellu ci bayit yi may bëgg a wax bépp nation kum mën a doon képp ku ci dellu xamal ni faaw nga am salaax xaw faaw nga am falaax yàlla nag àdduna bi ñu donc ay règle la ko def kii jullit ak ki jullit moo ci yem bu fekkee bu fekkee dafa nekk ku gàttañ lu liggéeyul ki nekk ko jullit gën koo liggéey lu mu ko gën a gëm yàlla gën a gëm yàlla résultat kee moo ëpp le kon yooyu ay règle la yoo xam dafa nekk ci kaw suuf règle yooyu sëñ Tuubaa da ko tënk ni wajaal jamial ulamaa amilin yàlla maa ngi lay ñaan balaa kenn jëf ci sama xeet balaa kenn jëf ci sama taalibe na xam la muy jëf mooy naka am xam-xam bu ma sëkk doo ko jëf muy wajaal jamial ulamaa amilin balaa kenn jëf na am xam-xam ba noppi waaye bu amee xam-xam bu mu yem ci xam-xamu théorie na ko pratiquer ulama amilin waaye gannaaw bi ñu xamee jëf li ñu xam jëf jooju nan def muxlisin nan ko sellal te yàlla rek tax nga xam ni nga nekk sa entreprise gis sa directeur ak nga ñàkk koo gis a ci yem nga gis sa sëriñ ak nga ñàkk koo gis moo ci yem sëñ Tuubaa bi mu demee ci géej gi gis fa mbokk gis fa kenn waaye ndax def na loo xamante ni tey lu ab taalibe mën a wax ne acam déedéet lan motax ndax dafa jiital boromam ci lépp moy ikhlas googu mu don wote da nek ci mom batay kon wajal jamil ulama amilin wajal jamil amilina mukhlisin waye nak wajal jami al muxlisina zahidin yàlla mang lay ñaan bala kenn jëf na am xam-xam bu amé xam-xam nako selal bu ko selé nako def lépp luy zuhdu lépp lo xamanteni tay luy kuukëra luy reuy nako ci génne waye nak su yoyep amé faw faizin am faw ñu am teraanga àddina ak su ñu sàkkoo xam-xam nan ko war a sàkkoo liggéey nañu war a liggéeyee sellal ko te yàlla rekk tax génnee ci lépp luy kuukare faw ñu am dam faw ñu am développement loolu force la moo tax bu ñu xoolee pays yi nga xam ne ay pays yu développé la li leen tax a mooy dañoo sonn ci xam-xam loolu ñu xam ñu koy jëfe li ñuy jëfeet ñu respecté ko bu baax a baax donte yàlla taxul waaye dañ ci sonn respecté heure respecté lépp lu ñuy def ci ay normes respecté seeni loi loolu ma leen mën a may lu ñu am mooy am xam-xam jëfe ko sellal ko génn ci lépp luy kuukare kon su loolu amee mu ni nag kon nan def nasihin na def duplication fi nga jaar ba am résultat na nga fexe njaboot gi jaar fa na nga fexe say collègue jaar fa na nga fexe képp ki ngay liggéeyaloo jaar fa am naa xam-xam am naa résultat fi ma jaar ba ñëpp am li ma am naa ko woon taalibe ñu mën koo am kon duplication faaw muy am nañu xalaat ni ñëpp Serigne tubaab bi mu demee ci géej gi bu fekkoon waajulul woon maam Cheikh Anta waajulul maam Cheikh Ibrahima Fall waajulul maam Cheikh Ibrahima waajulul sëñ Mbacke Bousso ndax kon lii mu fi bàyyi dina mën a sotti déedéet day na waajal kon li nekk ci yow faaw nga def ko ci njaboot gi waaye boo ko def ci njaboot gi na nga ànd ak sadiqin na doon dëgg te yàlla rek tax bul ni ko lii nii laa ko defee te defoo ko noonu na dëgg rek te yàlla tax. kon nag bu loolu lépp amee nag mbir mi mën a ñoŋal suñu dund mu ne wa agrinaa yaa rabbana bil xitma lil muslimina abadan wa rahma kon aussi na doon intérêt général njariñ loo fekke am murid gëmu ko njariñ loo fekke kooku ñi nga xam ni ñoo gëm intérêt nii àdduna ñoom ñooy xalaate noonu waaye Sëriñ Tuubaa wa agrinaa yaa rabbana bil xitma lil muslimina abadan wa rahma waxul taalibe de lil muslimin la wax te boo delluwaate teleesal biir mi nga naan naawee na fi aqrabin wa ajnabi man kat lima yene moy mooy jariñ képp ku ak kep kuma sori kon ab non non lay xalaté ab murit non lay xalaté fekk nek nit ko xamni nit ko am ñam lay doon ta bari nit ko ordinaire kan moy nit ko ordinaire moy ki nga xamni da gané aduna gané aduna gu ordinaire jang jang gu ordinaire am diplôme diplôme bu ordinaire am liggéey liggéey bu ordinaire am salaire salaire bu ordinaire am kër kër gu ordinaire am soxna soxna su ordinaire wala borom kër gu ordinaire liggéey liggéey bu ordinaire dem retraite dem retraite bu ordinaire dee dee gu ordinaire ñu fàttele fàtte gu ordinaire kooku mooy nit ko ordinaire ab taalibe du mel noonu Sëriñ Tubaa kan la soxla mu ni saxaaba yi mooy seen baay ci diine ñu am himma la soxla ñoo xam ne dañoo pare ngir xitma la soxla ñoo xam ne dañoo pare ngir bàyyi seen empreinte ci kaw suuf kooku la Sëriñ Tubaa soxla lii nga xam ne mooy lislaam lii nga xam ni mooy alquran lii nga xam ni mooy imaan fan laa ci toll ak déwén bu may ñëw ci gàmm gi fan laa ca war a toll lan moo ma manqué parce que loolu mooy tax askan wi ñoŋ loolu mooy tax suñu résultat yi di ñoŋ loolu mooy tax changement di am mais bu fekkee la ñu defoon daaw la ñu continuer def nan doon jàng lañ jànge nan doon organiser daayira la ñu organiser daayira yi bu déwénee même résultat mooy am ndax un plus un égale bu fekkee neexu la il faut nga ni un plus x kon résultat yi daa war a gën a ñoŋ lu ñu am ren mën nañoo am lu ko gën waye nak kon luñu def ren dañu wara def gën il faut lolu mu am engagement ñu tek ko ci xam-xam tek ko ci ful tek ko ci fit tek ko ci jom tek ko ci xitma ak himma buñ ko defé rek japp naan suñu borom dinañu may tawfiq àdduna ak alaxira ngi tu baax baax baax ci kaddu yi di ñaan suñu borom ñu yag ko fekk ay dewen dewen, di siyaré sama kilifa di tuubit bu baax ci kaddu gi ma yëkkat ci kanamam waye day ndigal lo xamni daf ma jox motax ñu sañ ko def diko ñaanal gudd fan bu baax ndax ak taxawayam ak ay ñaanam ak ay ndénkaan yi nga xam ne moom la ñuy jox wallahi fu ñu àgg moo ñu fa yeggale kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax gudd fan ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax tawfiix maamam Cheikh na Cheikh Ahmadou Bamba mu topp ko di sàkkit képp ku nekk ci baas bi ngeen ñaanal lañu ko ndax bu fi yàggee suñu sag la suñu sag la kenn ku nekk ci ñun ci woyof ga ci bëgg lu baax ga ci xam-xam ga waaye loolu lépp nag mu ànd ko bépp taalibe gu ñëw ci moom nga yaakaar ni mu yow la gën a bëgg ci taalibeem yépp kon loolu moy serigne te loolu lañ koy doye kon wacce fofu kadi di wax rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh